salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu taxaw ak ñetti promoteur ci làmb ji tey mu nekkoon journée bu mag bu CNG ñu def bilan ñu taxaw ak Fallou Ndiaye taxaw ak Kajoor production taxaw ak euh, fa Assane ñu leen di laaj tey Fallou li nga xamante ni mooy moo bi ngeen ñëwoon indil CNG ak li ngeen xamante ni ni moo leen naqari ci làmb de ton côté yow lan la woon. waaw euh, ñu ngi leen di fay bu baax di am mbégte ci dalal bi ngeen dalal euh, tey CNG moo woote woon euh, pour dajale monde de la lutte muy promoteur muy menacé muy président écurie entraîneur amateur ñëpp mu woolu leen di leen wax bilan bi nga xam ne moom la def di leen wax yokkute yi nga xam ne moom la am ci làmb ak wàññite yi nga xam ne war naa am biñ ko dégloo nag wax na ñun point yi ñu ci gën a intéressé mooy point promoteur yi. <coughs> wax nañu ci ne dañoo bëgg a yokkaat licence yi comme niñ ko comme fi mu nekkoon euh, wax nañ tamit dañoo bëgg a yokk frais d'organisation yi ah bi ñu waxee loolu ñun xamoon leen ne leen euh, bëgg nañu tamit wax nañ tamit dañuy wàññi temps wu combat yi pour lamb yi di gën a gaaw a teel a tas ñetti point yooyu xaw ñoo intéressé trop ndax lamb promoteur bu ci bailleur la ci bu defee ay centaine millions Euh, ñu ñëw bëgg a taxañ combat bi ci benn 10 minutes wala ci benn 2 heures de temps kooku du intérêt promoteur ndax tey des fois arène nationale ni mu bindoo da gis nit ñi ne ci biti rang bi gudd ñuy fuyee mbër yi day jël temps kon bu fekkee dañoo bëgg a euh, peu euh, souffler premier combat bi di 18 heures 17 heures wala 16 heures dafay indi ay gàllankoor kon ñu jàpp nañ ne tey 16 heures 18 heures pile war nañoo mën a souffler premier combat wala 17 heures pile. mais nag bu ñu ko bëggee souffler 16 heures wala 16 heures demi dafay jël day perte loolu promoteur ci lu bari te CNG wul fee pour xañ promoteur dafa war a nekk pour jàppale promoteur yi beneen bi tamit gis nañ ne làmb ren euh, am na avancement bu baax am na changement bu baax tamit ndax gis nga promoteur yi bari nañu mbër yi bëri bari nañ loolu nag nee na leen li ko waral mooy yombul wàcce yi ngeen wàcce mbir yi mooy wàññi licence su promoteur yi wàññi licence su mbër yenn fere yu bari ñu wàññi woon ko arène nationale beeg yooyu yëpp loolu moo waral tey promoteurs yi mën a génne yenn moyens yi pour mën a accéder ci événement yooyu ñu doon def euh, beneen bi tamit muy kaaw arène national wax nañ leen ko nee leen bunt yi amul sécurité promoteur bi fi tëgg làmb da ngay daw ba tas gis nga gris bi ni mu gàttee kon loolu tamit muy ministre des sports muy CNG bëgg nañ bala làmb ji ubbi ñu jël si ay matuwaay yoo xamante ne nii dina permettre ba promoteur fii tëggati di nga nekk en l'aise mais tëgg làmb di dàq ba làmb ji jeex vraiment métti ñoom nag CNG ñu ngi góorgóorlu ñu ngi def ay jéego waaye il faut ñu gën a yërëm promoteurs yi gën leen mën a jàppale pour làmb gën a mën a dem ci kanam ndax bu ñu oyofeelee promoteurs yi mbir yi ñu tëgg làmb rek jumtuwaay rek promoteurs yi nañ gën a mën a wane seen bopp bu baax gën a mën a wane seen doole waaye su fekkee dañoo dem ba làmb li ngay fay ci ay fere ëpp li ngay fay mbër yi promoteurs yi dañuy daal di reculer ndax xam nañ loolu pertement lañ ciy jëlee loolu nag ci lañ ñoom dèjà pare gu ñu xam naa bu ñu paree dañ ci a waxtaan incha allah saison bi dugg ci bisimilahi rahmaani rahim si alhamdulilahi rabbil alamin boo duggee ci mbir ci bisimilah génn si si alhamdulilah lool rek sant la daal pour man loolu mooy ndam li njëkk ci mbir am na nag ñoo xam ñun ak ñoom ñoo fi bokkoon nekk bi ñuy tàmbali am ci ñoo xamante ne yàlla jël na leen ñu bokk ci monde de la lutte ñuy ñaanal ñooñu yàlla yërëm leen jéggal leen xaaral leen àjjana ñun ñu fi desandeegum yàlla bàyyi ñu fi ba naal yi ñu naal ci suñu kanam ñu mën ko àggale ci jàmm ak salaam tàmbale ko ci bisimilah. àggale ko ci alhamdulilah comme ni nga ko waxee rek saison bii di ñëw ñoo ngi ci waajaat bu baax a baax def ci loo xamante ne tamit ñu fi def tey ji lu fi Assane deful mënuñu fi def lu fi Fallou deful mënuñu fi def lu fi suñu papa Gasson deful ñoom Aziz ñoom Lig ñoom ñëpp tey dañuy ñëw rek topp seen ginnaaw pour xool ci ñoom li ñuy def ñu copier ci pour ñëw aw ci yoon boobu loolu kese lañ dul leneen doxalinu CNG lan moo la si neex lan moo la si naqari ak yan changement nga si nga si bëgg yow de ton côté. waaw comme ni ko Fallou waxee rek xam nga tey jii bu promoteur amuloon ñoom foofu ñu toog duñ fa toog tey mën naa ni ñoom ñoom ñooy promoteur mooy patron wu CNG mooy patron wu mbër même ministre des sports bi toog sax promoteur bi mooy patron ndax tey bu promoteur amul woon. du jël ci ay ndawam di leen fi teg pour ñu mën di saytu làmb ci kon promoteur boobu nekk seen patron ñun ñëpp promoteur boobu la ñu war a gën a mën a protéger promoteur boobu la ñu gën a mën a yokk dayoo promoteur boobu la ñu war a gën a couvrir ndax promoteur bu tëggul mbër du bëre CNG du am kon kooku da nga war a jéem fexe ay intérêt am ñoo ko noo ko koy sàmmale noo ko koy défendre tey jàll naa ci benn journée muy Garga 2 Mama Lamine loolu dañ koy sante yàlla dogal suñu borom la dañ koy sant bu baax a baax a baax a baax te am na jàmm bi boo joxul sa bopp rek lu la yàlla jox santal mais ci biir sant boobu tamit dafay laaj ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk làmb ji yooyu ñu siy jël ay matuwaay yoo xamante ne su amee naam bokkul ci réglement bi bokkul ci cas force majeure mais règlement boo gis bu ne dafay am lu koy soppi day am luy xew tax règlement bu mën a soppeeku kon ci loolu ñoom war na am leneen luñ ci jàngatee ndax loolu nu mu ñëwee sama kaw mën na ñëw ci kaw Assane mën na ñëw ci kaw keneen te yooyu yëpp ñu war ko bàyyi xel génn nañ ci loolu comme ni ko Fallou waxee tey boo nekkee ci mbir ba nga gis ci benn yokkute nga def ci chiffre d'affaires boo xamante ni année passée defoo ko woon kon da war a xool chiffre d'affaires boobu li nga def ba tax loolu am kon loolu bu ko changé tey bokk na ci Fallou wax wàññi bi ñu wàññi licence yi te loolu bokk na ci frais d'organisation wàññi bi ñu ko wàññi loolu bokk na ci li ñu war a xoolaat mooy ci biir frais organisation boobu ñuy laaj promoteur bi tey promoteur bi bu tëggee mooy dem uti ay seize mooy uti ay barrière kon frais d'organisation ça veut tout dire tey loolu noonu yëpp ñoom la waroon mais promoteur bi topp leen ko ci kon tey ñoom bu ñu bëggee taxaat yi dañuy yokk loolu kooku xel mënu koo nangu tey comme Assane li mu wax xam nga dafay am loo xam ne xel da koy nangu am loo xam ne xel mënu koo nangu ndax li ma ne xel da koy nangu xel mënu koo nangu tey man mënumaa ñëw tey ma war a yem ak kii même pied d'égalité wala mooy war a yem même pied d'égalité mënul nekk naam dañuy dund làmb yàgg nañ ci làmb mais ay gan lañ en tant que promoteur tey am ñoom seen waruñu yem même waruma waruñu yem même pied d'égalité ndax li tax waruñu yem même pied d'égalité tey tey ki fi nekk yéen nekkoon ba mu méttee nekk fi ba dara dul dara tey man ma ñëw tey tey tey rek ba am faveur benn faveur ci kawam loolu war nañ ko xoolaat parce que da koy dem ci société yëpp la daal moom lépp fooy dem même da ngay dem ba ci équipe bu football sax ki nga xam ne mooy gën a nekk ancienneté sax bu ñu jox Braza du ñu xool ki ñëw tey ñu koy jox Braza équipe bi dañuy xool ki gën a nekk ancienneté ñu jox ko Braza équipe bi te yooyu yëpp ñoom war nañ ci mën a am leneen luñ ciy xoolaat luñ ci jàngaatee te am ne làmb ñëpp famille la quoi famille la suñu famille kon famille boobu bu ñu nekkee dañuy war di ñu bokk ay teen dañuy laxasoo ay goj ñu waajalaat saison bii di ñëw bu baax a baax. lan rek nga ñu si mën a fàttaliwaat lan nga ci mën a dénk téléspectateurs yi li nga xamante ne ni promoteurs yi seen ñaxtu la envers le CNG. waaw jërëjëf maa ngi lay nuyu di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan 2STV di nuyu mon ami Ibrahima Diop ak euh, Fallou Ndiaye comme niñ ko waxee rek tey dañu teew pour. intérêt promoteur yëpp dañuy teew tey pour lu yokk làmb mais nag buñ gisee loo xam ne mun na arrière ci làmb ji dara dañuy taxaw wax leen ko wax na leen ne leen bi porte yi yàqu na su fekkee mënuñu ko defar nañ ñu jox en charge ñu defar ko promoteur buy tëgg ñu ne la làmb ji porte yi fii la toll woon bi ñu koy defar lii nga siy joxe ba ba muy mat ñu delloo leen seen i kale promoteur bi dina am jàmm làmb am mu ubbi ñaari port loge ak amateur day am jàmm fu mu nekk mais doo def sa xaalis ba pare di daw di dàqante xel yi ba ngoon te benn billet làmb dafa am ñoo xam ne daf leen a jaral lu ne comprendre nga te nag euh, nit ki ñëw na pour yokk dooleel ko wax naa leen ko léegi nee naa leen am na ñoo xam ne def nañ fi dix ans ñii quinze ans ñii vingt ans bokkut ak ñi nga xam ne dañuy ñëw tey loolu la Ibrahima Diop wax sànq muy dëgg man ba may soog a ñëw tëgg naa ñetti at tëgguma sa dimanche ak samedi ay bis yoo xam ne pour bokk ci course bi rek moo taxal ma nekk si ma ma wax leen loolu ñu nangu ma leen aussi euh, am na ñoo xam ne waruñoo joxe caution ndax xam nga ne buñ jëlee date dañuy tëgg wala nga laaj leen benn sec boo xam ne suñ ci eggee nga neen yow yaa joxe garanti sec bii ne da ngay tëgg tëggoo. danañ la alamaan ci sa licence wala ñu téye sa licence loolu dañ koy nangu mais ñun duñ jël date mukk te tëgguñu mais nag imaginel tey jii ba janvier fa la date ya nekk nga bàyyi fa un million wala deux cent cinquante yoo xam ne dina daw trois mois wala deux mois et quelque toog. en ce moment lamb tëj kon date yi mi ngi ba janvier. ñu ubbi nañ ko ba janvier gars yi jël nañ ko. février mi ngi noonu. xam nga loolu. waaw kiy tëgg fi mu ne nii fii mois de février. voilà mi ngi noonu te ñun waxaguñu waxaguñu sax def bilan wala liñ defan ñu toog kalkin baax na wala baaxut nga commencé waat métti na aussi yàlla moo bind te yemalewut école booy soog a dugg ak ñiy sog a dugg tey mu ñoo yem comprendre nga nañ xam ne làmb dafa am njariñ ci réew mi tey jii ñoom bi ñu defee seeni bilan tey ay cent et quelques millions laa dégg ñuy wax yaa ngi moo fi dugg dugal nañ ci lii fee dugal nañ lii fële kon loolu boo gisee ñu koy def si réew mi war nga leen fonk jox leen cër. li ñuy dagg yi amul lenn lu ci promoteur yi am. ak ah, mën de gisuma ko mën de gisuma lu ñuy dagg mbër ñu joxaat ko promoteur. est tamit jotul yéen Assane ngeen taxawal lu lu mel ni association buy woote turu association bu dëgër bu pour mën a faire face à. waaw loolu moo war a am gis nga tey jii nii dañ ne dañuy waxtaan am na ñoo xam ne jarul leen ñëw. tey ji bu doon benn intérêt ñëpp fii fees del na CNG xam lool tey ji bu CNG organisé Diourbel gars yi duñ dem ndax jaralu leen dem ñi nga xam ne dañuy topp làmb nag di ci sonn war nañ leen defal benn faveur comprendre nga loolu moo war a am ñu def benn buum kenn ku nekk lii entre promoteur yi ñu taxaw kaas ko ne lii lañ bëgg ndax su promoteur amul mbër amul yëf yi dana metti comprendre nga nañ leen jox cër wax naa leen ko di leen dooleel engins yi ñu xam ne ñii fulla ak fayda ak tëgg laa moo leen yëkkati ñu teg leen seen place loolu laa leen wax. lu bool li waajal waa waaw ñu ngi wàcc ay événement si kàttanu ba bëgg nañ def cinq journées Dakar def trois journées ci région yi incha allah rabbi ànd cee ak 2STV nag. drapeau Matar Ba bi. <laughs> non boobu xam naa ne suñ deuxième journée. waaw deuxième journée. deux ah, deuxième journée Bawol. waaw boobu lañ ko bëgg a def ndax nag amateurs yi ñu ngi ñuy xaar Fatick ñu ngi ñuy xaar euh, zone boobu yëpp ñu ngi xaar ci kàttanu yàlla dañu tegoon cinq millions pour def événement bi dañ ko yokk léegi six millions la trois millions pour euh, lese yi trois millions pour luur ñu def ko samedi ak dimanche lu mosul am. kon loolu dina rëy monsieur le ministre nag jar na ko quoi. jaajëf.